yéenekaay bi nee nañu wax na ci bureau municipal bu yees bi ñu taxawal ca mairie bu Dakar wax na ci dàq gi ñu ne dañu koy dàqee ñoom xalifa Sall di waa taxaw Sénégal ci biir coalition Yewwi Askan Wi wax na ci député yu parti Pastef yi ak ni ñu doxalee ci assemblée nationale keroog bi ñu waree wote loi bi tax Khalifa Ababacar Sall jotaat ay droit ngir mën a bokk ci élection léegi ko nañu Barthélémy Dias da doon solde ay comptam démb ak waaye Yewwi Askan Wi nee na ci biir Yewwi daf ci am ñi ñee ak ña ca des maanaam les les autres les extras nee na situation bi Ousmane Sonko di dund ba tax ñuy tëbaka daal ñun tolloon nañu fi jaar nañu fi te kenn dégguñu dañu ko dund ci dignité dund ko ak sérénité dund ko it ak lucidité mortal combat le quotidien nee nañu moo am guddi yu toll ci biir coalition yeewi askan wi conflit d'intérêt mu di bëgg-bëgg yu daje moo tax ba taxaw ak Pastef mënatuñoo jaaro ab taal kàddu yu Barthélémy Dias ci xët mu bi muy wax ne bu ñu bëggee xam ñan ñooy traître yi ñan ñooy workat yi nañu xool ñi nga xam ne ba ñu ne dañuy woote ngir réhabilité Khalifa Sall dañu téye woon seeni yoxo bañ lànk ne duñu woote lii quotidien nañu Barthélémy Dias meerum Dakaaru démb ba muy wax ak journaliste yi raayul ay waxam nee na ci biir yeewi askan wi da am ñoo xam ne leen rek moo leen di teel mooy nu ñu mën a def ba tam dëmm coalition taxawu Sénégal akub leaderam di Khalifa Sall waaye loolee duñu leen ko may journal L'Info bind ne Barthélemy Diaz ak fitalam la yoroon démb sox ko di ko joxar Ousmane Sonko ak waa këram yi di Pastef Barthélemy Diaz ne ñi ne daje nañu ba ne dañoo dàq waa taxawu Sénégal ci biir yeewi askani ñooñee dañuy caaxaan ak di fooyu seenum xel ndax kenn mësuta gis ci àdduna koo xam ne dañ laa luye nga xëy xëy ne xam ne ñoo fi taxawoon ne dañoo bëgg Khalifa Sall bokk yoon ñu bind ab sart ba signé ko ñu dem ba yegg ci loi bi ñu war a ngir réhabiliter Khalifa Sall ña waxoon loolee bëgg doxale neneen ñeneen ñi di waa l'observateur nee li leen dal mu di tas gi ñu tas parti bi ak raje gi ñu raje Ousmane Sonko ci liste électorale yi bu ñu ko bëggee lijjanti du yomb ci ñoom bataille de recours bu tar moo leen di xaar li sànk seen waaji di Ousmane Sonko journal Tribune génnee ca loxob Khalifa Sall yéenekaay bi mi tax na déggoo ko dàkk na anki dina kay gis ne li ñu naan réalité politique moo dab waa yeewi askan wi ba fartas coalition ba Walf Quotidien ne ko lépp nag ci ndimbalul Macky Sall li Macky Sall ne woon dinaa reeteet ku jéggi ba duñu des lu dul aw xot mu di réduire l'opposition à sa plus simple expression loolee am na Macky tas na opposition bi Walf Quotidien moo ko bind ñu tase ci xët mu njëkk Vox Populi ginnaaw jéyee ji woon ci wakam bu yàggul ci immigration clandestine bi yéenekaay bi nee nañu am na jeneen jéyee ju amat ca Tëngéej tukkee ba tey ci mbëkk mi ubbil journal bi gaalu loo ca gu bëggoon a départ plage bu ndeppe de yaboon ay clandestin clandestin ki faatu l'observateur ne nañu mbay ngoom la tudd anam yi mu faatu yéenekaay bi gis na bari na ay lënt-lënt ak yu leerul yu ci am li am ci immigration clandestine di gaale looco yi gune réew mi di mbëkk wutali bitim réew la tribune mi ngi ñuy xibaar ci xëtamu njëkk ne ci weeru sulet gi ñu génn wàññi nañu ci réew mi fanweeri doomi Sénégal yu faatu ci géej gi ci immigration immigration clandestine ñooñee ñoo nga fekk baax ndar tëngéej ak caaro yi ca fas buy ga ca kees journal bi nee nañu askanoo fa nekk ñoo ngi tëgg seen gémmiñ di woteeg wàllu ci kilifay réew mi ndax lu ma téeméeri nit ak juróom fukk yu dëkk ca dëkk ba ñoom bëkkoon gaal gi doon dem bitim réew fanweeri fan ba ñu demee ak léegi seeni mbokk xamuñu ci ñoom dara abonné ci suñu seen youtube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér te aju ci réew mi ak ci bitim